waaye nag ragal dana tax ñu jullee nen na kon julli gi nga xam ne ragal a ko waral loolu lañ ci ne mu waaye du julli gi ragal a ko moom comme ni ñu waxee julli gi xeet feet gi moom julli googu dañ koy julli ndax feet gi waaye ragal moom amul julli boom parce que tusubaar gi nga xam ne ragal ak si lu ragal yëpp moom koy julli la tàkkusaan googu la timis googu la gaye googu la mais ragal gi dana tax ñu changé forme julli ba changé boobu ñu ko changé nag ragal gi mooy sabab ba kon baabun laa bunt la fi salaatil xaw fi si julli gi nga xam ne ragal a ko waral julli ragal nag kooku sunna la su dëgër léeg-léeg nga dégg ñu ne sunna su war la waaye sunna su dëgër lañ ci namm léeg nga dem ci yenn téere ñee la julli ragal ruxsa yombal la waaye ruxsa yombal danay nekk yombal gu war dana nekk sunna dana nekk lu dagan <coughs> baatu ruxsa moom ambaal na yëpp ruxsa sax dana nekk luñ sib dana nekk li nga xam ni gënul ku xiif ba nga xam ne bu lekku dee lislaam da koy may mu lekk medd lekk medd googu ruxsa la yombal la waaye lu war la kuy tukki lislaam daf koy may ruxsa ak yombal mu wàññi julli wàññi julli googu roxsa la mën nañ ko tuddee roxsa gi firi yombal waaye nag sunna la masa dali san kooku roxsa la boy japp nga masa sa daali sang yaakaar naa romb nañ bunt boobu masa daali sang roxsa la dégg nga waaye nag lu rek la kum neex ñàkk cee masa kum neex nga simi raxas tànk ba dégg nga eh, naka noonu ngay tukki lislaam may na ruxsa nga dagg tukki moo xam ni mat na wàññi julli ci weeru koor waaye dagg kooku dañ koy sib ruxsa la waaye luñ sib la kon ruxsa dafay yóbbaale lu war na <coughs> luñ sopp eh, lu dagan ak luñ sib yëpp baatu ruxsa la koy ëmbaale moo la da ngay fekk ci téer yi ñu ne la jullik ragal ruxsa la ruxsa la mais teewul ku nekk sunna na dégg nga moom nag dana wax niñ koy defee waaye daal sax na ci alquran dégg nga sax na ci sunna borom xam-xam yëpp dëppoo nañ yonent bi wax na wa iza kunta fihim fa aqamta lahum salaat salaata faltaqum taa'ifatun minhum ma'ak yàlla bu ngeen julli julli ragal naa mbooloo mu ñëw taxaw ak yéen julli ñeneen ñi dem taxaw mm, ak seen i jàkkaarloog ya loolu la yàlla wax benn googu kon alquran saxal na ko rod na si sunna ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa julli na jullig ragal yooyu xadis yu bëri rod na ci borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ndax gannaaw yi génn àdduna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mbooloo si saxaaba yi julli nañ ko te kenn ci weddiwul leen ci kenn waxu leen ne lii waru leen ko def <coughs> dégg nga am na ci borom xam-xam yi wax ne dañ koo folli moom jullig ragal waaye daal loolu Malik jàpp ko Abu Hanifa jàpp ko Shafi jàpp ko bokkut ak daal li gën a dëgër li gën dëgër mooy ju ragal ba léegi mu ngi mu ngi war ndax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli na ko ci ñetti xare dégg nga mooy xare zaatu riqaa ak xare batnu naxiil ak Usfaan dégg nga yooyu yëpp yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli na fa jullik ragal من صلاة الخوف جولي رجل في السفر بريت تك إذا خافوا من رجل يوم جولني العدو ولا رب نونوا نون وخم هيفير ولا جولني جولني يوم بي قرن يوم تشيلو دغ نون كاي ان يتقدم موي الامام امام bi taayifatin ci ab mbooloo maanaam na jiite am mbooloo waaye dama mu bàyyi taayifatan am mbooloo mu waay yaatan addu wi ña jàkkaarloog noon ya waaye nag imaam daf leen xamal nañ koy jullee bu fekkee ñoom xamuñ ni ñu jullee julli ragal dafay war imaam mu xamal leen ko ndax julli googu nañ ko su fekkee nag ñoom xam nañ ñi jullee julli ragal danañ sopp ci imaam mu fàttali leen ko ndax bokkut ak julli gu nit ñi miin julli gu nekk nag <coughs> fay soli dana jiiteel imaam imaam bi taay fatiñ ci kuréel dégg nga julli gu nekk dana am noddu am liqaam dégg nga su fekkee buñ noddee ñeneen dana ñëw waaye su fekkee buñ noddee keneen du ñëw moom jarul ñuy nodd kon julli ragal luñ ragal ragal ragal ndem bu fekkee buñ noddee ñeneen dinañ ñëw danañ nodd danañ ko liqaamal moom julli ragal képp kuy xeex xeex buñ daganal ci lislaam mën nga koo julli ni ki xeex ak xeebéeri ko xeex gu war la ñooñu mën nañ koo julli xeex ak ay nit ñu beew ñooñu man ñun ñee xeex ak ñu beew mën nañoo julli julli ragal xeex gu dagan ku koy def mën ngaa julli ni ki ñu bëgg ñëw song sa alal jël ko ah dagan na nga xeex ak ñoom su ko defee xeex googu tamit lu lislaam maye la mën nga ko mën ngaa julli julli ragal dégg nga su fekkee dangaa ragal ay ndogmentu ni ki ay til ay ay ay gaynde ak segg ak yooyu wala ngay ragal ay bànn yu ñëw jël sa wala ngeen ragal ne am nii daal bu ngeen jullee normal rek man ngeen ci alku soo bàyyeen man ngeen xaaj julli julli ragal kon du ragal nit rek moo koy waral waaye ragal lépp lu la lor dégg nga amaa su fekkee ñay xeex xeex gu xeex gu xaraam la ñuy xeex ni ki ay jullit yuy xeex te bànneexu bakkan nag ci lañ teg xeex bi comme ni muy xewee ci yenn jamono yi ñooñu kenn si ñoom mënu faa julli julli ragal ndax kenn ci ñoom mënul wax ne xeex gi mu xeex xeex gu dagal la ci bànneexam la ko teg imam booy xeex ak moom xam nga ne caaxaan si nga nekk yow amoo droit di julli ragal dégg nga waaye nag booy xeex ak jullit ñoo xam ne dañoo bew ah su boobaa mën ngaa julli julli ragal di lee ci xeex ak lañ ko yoonaloon si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye teewul rek mm, ragal gi moom mooy na mu amee ci diggante jullit ak xéeféer noonu lay amee ci diggante jullit ak jullit bu bew waaw maanaam saa yoo xeex ak koo xam ni jaaduwut nga ragal ne bu ngeen jullee ñu faagaagal leen te yéen nekk ci dëgg am ngeen du rax xaaj ko loolu moo andi woon julli ragal goofu ba ñu wax ne ci yéefee rek la yem julli ragal nag bu dee tukki ngeen ragal noon noonu imaam dafay jiitu jiite ab kuréel beneen kuréel ga jàkkaarloog noonu ya ku ko defee fay soli mu jiital imaam imaam bi taay fatin ci kuréel gu njëkk gi rakatan abrak su ma yasbutu mu daal di sax xaayiman daa ji taxaw waaye solo nañu julli li anfusim ñeel seen bopp rakaatan abrak dégg nga su muy sallimoo nañu sëlmal fa yaqufu nañu taxaw makaan asaabim seen barabi àndoor yi su ma yaati mu dikk asaabum seen àndoor yi fa yuxrimu imaam mu xarmal al imaam imaam fa yusalli mu julli bi mu fi ñoom arakaata saaniya rakam ñaareel ba su may tashaadu mu taaya way sallimu musalmal su ma yàqu doon topp ñu fay rakaatati rakk bi nga xam ne faatarum faat na leen wayen sarifuna te ñu wàññeeku ni imaam di def mooy dafay xaaj mbooloo mi ñaari xaaj su fekkee julli tukki la xam nga ñaar rakk rek la julli ba mu des timis dana wax timis ñaar rakk la ñuy julli suba moom nag tukkee tukki ñaar rakk la kon imaam dafay jiite mbooloo mu njëkk mi benn rakk su jullee benn rakka fa taxaw moom imaam ko defee mbooloo moomu fay maanaam mottali seen benn rakk bi des sëlmal daal dem taxaw fa seen morom yi taxawoon ñooñu ñëw imaam mottali leen rakk bi des sëlmal ñoom ñu jug fay rakk bi des imaam rawee julli tukki yëpp noonu noonu la koy def waaye nag ba mu def julli ñetti ñetti rakk dégg nga imaam bu jugee ci rakk bu njëkk bi taxaw bu taxawee am na ñu dafay noppi am na ñu dafay jàngal alxuraan am na ñu dafay ñaan yàlla yàlla may leen ngañe ci xare bi yàlla dimbali leen <laughs> kon rakk bu njëkk ba mbooloo mu njëkk ma def leen jiite benn rakk jug taxaw su jugee taxaw ñu ne day noppi ñu ne day jàngal xuraan ñu ne day ñaan yàlla yàlla dimbali leen ci xare bi nga xam ne ñu ngi ci nekk may leen may leen ndam ko defee Euh, noonu lañ koy defee mbooloo mu njëkk mi bu leen imaam jiite benn rakk ñoom ñuy jug di fay na nga xam ne nekkatuñ maamoom suñ juumee ñooy si jóot bu dee wàññi la qabla salaam bu dee yokk la baada salaam mu njëkk mi nga xam ne imaam jiit na leen ab rakk jug taxaw ñoom ñuy mottali bañ jamono ba ñuy mottali imaam jiiteetu leen su julli imaam gi yàqoon sax te fekk imaam taxaw na ba pare ñoom seen julli yàquut maanaam imaam dafa julli ab ràkk jug taxaw ba pare su defee foofu lu yàq julli ñoo imaam bi moo yàqule waaye ñoom dañu mottali seen ràkk bi rek dem ñoom suñ juumee wàññi wala ñu yokk dañuy sujjóot imaam gàddul leen ko waaye bu fekkee ci ràkk bu njëkk ba nag bi ñu ànd ak imaam si lañ wàññi imaam lañ koy gàddul bu dee dañ cee yokk imaam lañ ko gàddul te boobu bu imaam yàqoo ñoom dañuy yàqule kon ràkk ba ñuy julli ñoom mbooloo mu njëkk ma ràkk boobu imaam gàddulu leen ko comme ni nga xame ne ñuy fayit mbooloom ñaareel ma rakk ba ñu ànd ak imaam moom ñoom maamoom lañ imaam leen gàddul wàññi yokk su imaam yàqu leen yàqu waaye nag bu imaam sërmale ba ñuy fayit du leen gàddule ci dara dégg bu njëkk bi nag su fekkee imaam dafay jug jugam matagut su imaam julleem yàqoo ñoom ñooy yàqule su imaam su jotee ñaari su jot waaye mu ngi jug fa muy taxaw moom imaam yàqule na su ñoom dañuy yàqule parce que jamono boobu maamom la maamom lañ dégg nga lu may imaam daal di tojle su le moom lañ leen waxoon ci tojle rek mooy dafay wuutal kenn mu mottali mu mottali julli gi ki ñu wuutal nag dafay xool xaal bi imaam nekkoon ba muy tojle xaal boobu ci lay kii bu doon imaam day sëgg siggi ci rukon bi noonu lay ñëwee noonu ci xaal boobu rek taxaw ci kanam su ko defee siggi dégg mottali bu siggee kuréelu gu njëkk gi mottali ñaareelu rakk bi daldi di sërmal ñeneen ñëw mu julli leen li des ci julli imaam bi dégg mm, su ko defee bu leen jiite ñaareelu rakk bi des ci julli imaam gi moom dafay sëlmal parce que moom boo xoolee am na ñaari rakk ñoom ñu mottali seen bopp dégg nga kuréelu ñaareel gi nag su imaam sëlmalee ñu jug di fay rakk bu njëkk ba dañ koy fay kenn par kenn su leen keneen jiitee nag julli gi dafay yàqu kuréelu ñaareel bi imaam sëlmal la buñ jugee di fay benn rakk rakk bi la imaam rayoon kenn par kenn lañ koy lañ koy jullee kon li mu bëgg wax foofu mooy imaam julli tukki nii lañ koy defee imaam dana jiite kuréel gu njëkk gi benn rakk su leen jullee benn rakk bu siggee sujjóot bi bu mu toog dafay jug taxaw su jugee taxaw nag na ñaan ñu ni day jàngal xuraan ñu ne day taxaw rek noppi kon nga jàpp ne li mu ci def baax na su jugee taxaw jamono boobu ñoom jiitoon rakk mu njëkk dañuy julli seen rakkam ñaareel jamono bu ñu julli seen rakkam ñaareel na jàppal na duñ maamum bi maam yàqulee ñoom yàqule wuñ bu buñ wàññee ñoom dañuy sujjoot génn nañ ci ci eh, at imam bi jotewutuñu moom dara ñu fay seen rakk boobu suñ fayee seen rakk boobu xam am na ñoom ñaar rakk dañuy sëlmal dem maa ngi wax fay waaye dañuy julli rakk bi des dañuy sëlmal dem seen moromi àndoor yi ñoo ñu ñëw imam jiite leen rakkam ñaareel bi daal di sëlmal su imaam sëlmalee nag su ko defee ñoom ñu fay rakk ba leen imaam rawee woon ba ñuy fay rakk ba leen imaam rawee woon it imaam gàddul leen dara te bu ñuy fay nañ ko fay kenn par kenn du nangu keneen si kenn si ñoom daal di leen jiite su leen jiitee dafa yàqu su ko defee ñu sëlmal imaam nag su doon julli ràkk bu njëkk ba ak mbooloo mu njëkk ma si géegut mu le xaal ba mu tojlee rek lay xëcc si kenn mu ñëw mottali ñëw mottali julli gi yaa ngi may dégg na mu rek lay xëcc kenn mu ñëw mottali julli gi su mottalee julli gi nag euh, euh, maanaam day siggi nag moom moom bu fekk imaam da doon siggi far toj de moom day siggi taxaw parce que léegi moom nekkatul moom bu siggee taxaw mbooloo mu njëkk bi mottali benn rakk bi dem seen moro bi àndoori ñoom ñu ñëw mu jiite leen benn rakk bi de sëlmal su ko defee ñu fay noonu lay demee dégg nga imaam dégg nga mboolam ñaareel ma am nañ ci wutee su jiitee mboolam mu njëkk mi benn rakk bu ko defee rakka mboolam ñaareel mu ñëw mu jiite leen benn rakk ba ni taalifkat bi waxee nii mooy dafay taaya sëlmal waaye du xaar mboolam ñaareel ma bañ taaya ba war a sëlmal ñu sëlmal ndoor dégg nga waaw dafa am ñu ne nag am ñaareelu imam bu taaya ba pare daf leen di junj ñu jug buñ mottalee nag hmm, ba seen julli mat su ko defee imam dóora sëlmal ñu daal di sëlmal am dóor yaa xam nu wax rakk bu njëkk bi moom imam day taxaw rek ñee mottali su ko defee mbooloom ñaareel mi nag buñ ñëwee bu imam taaya si li Ahmad ibn Hanbal wax ak ñi ànd ak moom mooy bu imaam taaya boo war a sëlmal daf leen xaar ñoom ñu fay pour ñu ànd ak imaam sëlmal am ñu ne déedéet imaam moom bu taaya pare dafay sëlmal ñu jug fay ñaar yëpp danga gis xadis yu yu koy dëggal na man nga leen xaar ngeen sëlmaloon door man nga sëlmal moo tax su fekkoon ne imaam dafa taaya ba pare xaar leen bañ mottali seen julli gi مدال لي سلمل جيلين باخنا دا امنا ني واخني داف لين ورا داف لين ورا خار هم دنگا هكذا انك ني يفن لا يدف الامام امام في, في صلاه الفرائض في جيلي فرتي كلها لب الا المغرب لو موي تيمس جيلي فرت ييب نون لا سي امام داف بام داف سيمس خم غو بودي توكي لا ني نيو غون سي تيو جيلي فرت ييب نون لا يدف تيمس نا خم غني توكي كين دوكو واني نريكو بودي تيمس كون نون كاي جولي mooy na fay noonu ak moom yu salli day jiite bi taayifatil ula ci kuréel gu njëkk gi rakante ne ñaari rakk ndax timis kenn du ko wàññi beneen kuréel gaa ngi jàkkaarloog noonu ya dégg nga ba bi saaneeti ci kuréelu ñaareel ga rakaatan ab rak kuréelu ñaareel ga mu jiite leen ab rak su ko defee taayee seen man maanaam mbooloo mu njëkk ma imaam daf jiite ñaari rakk su leen jiitee ñaari rakk yoo xam dafay jàng faatee saar comme kii ndax ñaari rakk yooyu dafay toog wala dafay jug kooku borom xam-xam yi wutee nañ ci kuréel gu njëkk gi su leen imaam jiitee ñaari rakk jàppal ne wutee gi may wax dafay xam ci mboolem julli nga xam ne julli ñeenti rakk la dégg nga bu doon julli teew gis na ñaari rakk ba pare. ndax imaam dafay toog xaar beneen mbooloo ma wala dafay jug taxaw ci ñetteelu ràkk ba xaar beneen mbooloo ma borom xam-xam yi wuti nañ ci dégg eh, soo jàppee ne dafay taxaw moom imaam borom xam-xam it wax nañ ne ñi ne dafay taxaw noppi comme nañu waxoon bu njëkk ba wala day ñaan wala day jàng-jàng gudd naka noonu si boo jàppee ni dafay toog it ñeneen ñi ne buy toog dafay toog di ñaan parce que foofu moom du barabu jàng wala mu euh, dal di nopp waaye bu toogee daal mën naa ñaan kon imaam su jullee timis ñaari kuréel gu njëkk gi ñaar ràkk na ñi ne mën naa toog di ñaan ñi mën naa jug di ñaan wala mu taxaw su jugee nag dafay juñu bu toogee dafay juñu mbooloo mi ne jug leen fay bu dee day toog. dañu ñu mbooloo mi ne leen aywa jug leen fay su ko defee ñoom ñu jug julli ràkk bi des am ñetti ràkk daal di sëlmal dem seen moroom yi ñëw mu jiitu leen ràkk bi des moom imaam daal di ñoom ñu fay ñaar ràkk yam leen rawe yaa ngi xam ne mu wax kon su dee timis la dafay jiite kuréel gu njëkk gi ñaari ràkk su paree nag ñaari ràkk yi mën naa toog di ñaan wala mu jug taxaw di ñaan wala mu noppi su dee dafa toog na juñ mbooloo mi ne leen jug leen fay waa jug leen mottali ñu jug mottali ràkk bi des su ko defee sëlmal ñoom dem taxaw fa seen morom eh, ya taxawoon ñoo ñi ñëw imaam jiite leen benn ràkk daal di sëlmal su ko defee ñoom ñi mottali ñaari rakk yi leen imam rawee woon xam nga mën a wax loolu mooy julli tukki si mboolem julli yi timis ke moom tukki ak teew yëpp noonu lañ koy defee nii ma leen wax noonu lañuy defee timis ci tukki ak teew léegi yeneen julli yi nag suba it nañ leen wax noonu lañ koy defee ci tukki ak ci teew ñaari rakk yooyu nañ ko jàngee woon la léegi bu dee tisbaar wala war a gee te du tukki teew la nii lañ koy defee way salaanam jul na biim ak ñoom fil xadari ci teew li siriti xawfin ngi tasak ragal moo xam noonu lañ ragal wala koy geer ak ñoom wala bandi wala ay ndogmentu salaana julli fi zuhri ci subaar wala ansir ak takusaan wala isha ak gee bi kuli taay fatin ci kuréel gu nekk rakante ni ñaari rakka dégg nga kon kuréel gu nekk ñaari rakka la leen jiite su jullee su jiitee kuréel gu njëkk gi ñaari rakk bu taaya ba pare daf leen junj na leen jug leen mottali seen julli gi ñu jug mottali ko kenn par kenn moom bu fekkee dafa toog dafay continuer toog di ñaan yàlla wala mu noppi waaye foofu barab du barab bu jàng ñii ne dafay jug taxaw bu leen jiitee ñaari rakk di jàng wala muy ñaan wala mu noppi comme nañ ko waxoon su ko defee kuréel gu njëkk gi bu mottalee kuréelu ñaareel gi ñëw ñoom ñu dem taxaw foofu su ko defee imaam jiite leen ñaari rakk yi des su imaam sëlmalee ñoom ñu jóg fay li nga xam ne nii imaam bi julli woon na ko ak kuréel gu njëkk gi mooy lam leen rawee woon su ko defee mm, ñoom ñu daal di sëlmal bu ko defee même wuute bi ñëwaat ndax imaam dafay xaar ñee bañ fay mu door a sëlmal wala dafay sëlmal rek ñoom ñu jug fay lañ leen rawee woon kooku am na ñaari wax boo si def baax na dégg bu dee àjjuma la imaam dafay xaaj mbooloo mi ba tey dégg nga eh, gu njëkk gi mu jul leen mu jul mu leen benn rakk waaye nag ujuhóor mu wax loolu ujuhóor moo moo teqale masalam ajjuma waaye daf ci àgg ak mu ne bu dee ajjuma la kuréel gu njëkk gi jiite na leen ab ab rakk dégg ñoom bu ñu fay rakkam ñaareel bi kenn kenn lañ koy fay wala imaam ma leen jiite parce que ajjuma moom nee na dagunut kenn di ko julli loolu loolu na ci maanaam kuréel gu njëkk imaam jiit na benn rakk ñoom ñuy jug di mottali rakkam ñaareel bi ndax imaam dañuy jiital kenn mu mottali leen ko dañ koy julli kenn kenn su ko defee loolu gag na ci waaye lam gën a gis daal mooy ne dañ koy julli kenn kenn te wax na dëgg parce que loolu moo gën a yenu maanaam ndax àjjuma comme que jiite imaam bi jiite na benn rakk rek garaawul benn rakk bi ñoom am nañ imaam dégg kon loolu la gën a gis nee na ñaari kuréel yëpp foo mu mat fukki góor ak ñaar kuréel gu njëkk gi bu dee àjjuma la foo ñu mat fukki góor ñaar yu bokkut ak imaam kuréelu ñaareel gi it mu mat fukki góor ak ñaar te ñaari kuréel yépp il faut ñu teewee xutba ya waaw loolu il faut du ci mën a ñàkk bu dee aji moom parce que euh, euh, aji moom ñu ñaari kuréel yépp foo ñu teewee xutba ga dégg nga parce que kuréel gu njëkk gi ñoom seen julli kese lañuy def ak imam comme foo ñu mat fukk góor ñaar foo ñu teewee xutba gi parce que ñoom ba ñuy julli ak imam ñaareel gi nekk fa kuréel ñaareel gi ñoom il faut ñu teewee xutba gi parce que ñoom kese ak imaam ñooy julli yaa xam loolu lii la ko lii la ko ujoor di teqalee ci kéem ci julli ajuma kon moom ku nekk ñaar ràkk la ni julli wala kulli salaati ñeel na bépp julli ci julli ragal dégg nga azaaru nodd way xaamat ak liqaam xam nga boo déggee ñu ne julli ragal rek mën ngaa jàpp ne jëru sa nodd ci kaw waaye déedéet su fekkee am nañ mbooloo te buñ noddee ñeneen dinañ ñëw ah ñuy julli farata ca waxtu wa su boobaa mën nañoo noddu mën nañoo mën nañoo noddu dégg su ko defee loolu ñu la wax nag mooy su fekkee mën nañoo xaaj mbooloo mi ñaari xaaj noonu la jullee suñ mënul xaaj mbooloo mi ñaari xaaj moom la bëgg a wax nii waaye balaa ñu cee ñëw it ñu war ne même buñ mënee xaaj mbooloo mi ñaari xaaj du tee nañ mën a jullee rek la ñuy jullee su fekkee mën nañ leen xaaj ñaari xaaj. waaye nag bu ñu fa naree rukon ko sujjóot ñoom xaaj bu njëkk ba ñu xalak leen duñ rukon dañuy junj rukon yi ak sujjóot yi bu fekkee sax bu ñu wàccee seen fas yi am problème foofu ñu toog seen fas yi diir ngandaay imaam buy jiite mbooloo yi tamit seen kaw fas yi lañuy nekk di junji nañ mën a nañ mën a junjee mazhab Maalik nanguwut kuy junji roy kuy junj loolu ngir mi nanguwut ko yow dangay ngay junj rukon yi ak sujjóot yi dégg nga mënoo jiite kuy junj. waaye fii moom sett nañ ko ci parce que fii ragal a ko waral kon mbooloo mi buñ xaajee ñaari xaaj ñii imaam mën na leen jiite gaa jiite waat ñeneen waaye ñoom ñëpp bu leen jiitee ci rukon sujjóot ñi xalag leen su boobaa dañuy junj rukon yi ak sujjóot yi islaam diine diine diine yërmande la dégg su fekkoon it euh, mën nañoo xaaj mbooloo mi ñaari xaaj imam jiite leen ñu bàyyi ko julli kenn kenn wala boog sax ñu am ñaari imam imam bi jiite ñi imam bi jiite ñële soo boobaa loolu dana baax waaye nag sunnaay jullig mboor jullig ragal amuñ ko xam nga ma nañoo xaaj ñaari xaaj imam bi jiit ñële ñële taxaw fële buñ sëlmalee ñoom julli gu mat sëkk beneen imam jiite beneen mbooloo ba léegi bool defuñ jullig ragal te jullig ragal si boom tiyaaba ak tiyaaba mëng ca su boobaa tiyaaba ak jullig ragal gi moo leen faat waaye julli googu baax na suñ julli kenn par kenn nit tiyaaba ak julli ragal ga ak julli mbooloo moo leen faat waaye julli gi baax na naka noonu it du dagan ñu xaaj leen lu ëpp ñaari xaaj ñaari xaaj rek dégg nga su fekkee ëpp na ñaari xaaj julli gi dafa yàq ñoom ñëpp seen julli gi dafa yàqu loolu am ci borom xam-xam yi ñuy wax loolu ñu ne déedéet ku teqalikoog imaam ci barab bu dul barab bu teqalikoog imaam kooku lay julleem yàqam ci misaal hmm, julli ñetti rakk la mu xaaj mbooloo mi ñetti xaaj kenn ku nekk mu jiite ko benn rakk hada mustahil loolu du julli mbo julli rayoon su ko defee nag jullee bu dee julli ñetti rakk xam nga bu jiitee ñi benn rakk ñoom ñu jug mottali seen julli gi baaxut parce que bu doon julli ragal la fa mu waroon teqaleeg ñoom mooy ñaari rakk hmm. kon ñooñu teqali koog nañu foo xam ni waruñ faa teqali koog hmm. seen julli gi baaxut ña teqali ko moom si julli ñaar si ñaareelu ràkk ba nag wala si ñetteelu ràkk ba ñooñu moom seen julli dana baax bu ñu dégg su ko defee dafa am ñu ne bu xaajee mbooloo mi lu ëpp ñaari xaaj rek su ko defee ñoom ñëpp dañ julli seen julli dafa yàqu ñii ne ka teqalikoo imaam ci barab bu dul barabu teqalikoo hmm. kooku lay julleem di yàqu waaye kaa xam ni bu imaam julli woon moom barab ba mu teqalikoo imaam foofu la war a teqalikoo moom su boobaa julli dégg eh, eh, loolu mooy mooy mooy kii bi dégg kon fu fekkoon ne julli ñeenti rakk la mu xaaj mbooloo mi ñeenti xaaj ñu ñam jiite rakk bu njëkk ba dañuy yàqule ndax ñoom fañ teqaliko imaam du barabu teqaliko ñam jiite rakk bu njëkk ba rakkam ñett ña ko moom ci rakkam ñetteel ba dañuy yàqule parce que rakkam ñetteel kenn du war a bu teqali ko amaa ña teqali moom ci rakkam ñaareel ba soo baa danañ baaxle dañuy jug fay yi des rek ña teqali ko moom ci rakkam ñeenteel bi danañ baaxle bu doon ñetti rakk yi ña teqali ko moom ci rakkam ñaareel ba ak rakkam ñetteel ba soo baa danañ baaxle yaa nga xam ne kon noonu lañ ko waxee imaam su waree sujjóot sujjóotu jamaj bu fekkee sujjóot bi ak kuréel gu njëkk gi la maanaam kuréel gu njëkk gi ci la wàññi war a sujjóot su ko defee kuréel gu njëkk googu mm, ba imaam xabla salaam la war a sujjóot ah, su ko defee ñoom dañuy ànd ak imaam sujjóot xabla salaam dégg nga Euh, bu dee baana salaam la ñoom ñu jug fay ba pare door ko sujjóot dégg su fekkee kuréelu ñaareel ga nag ñoom ah ñoom it buñ ñëwee dégg maa ngi wax ku dee kuréel gu njëkk gi xam nga ñoom imaam bu leen jiitee dafay dafay toog xam nga imaam sujjóotagut waaye ñoom dañuy jug fay buñ jugee fay ñoom balaa ñoo sëlmal si dañuy sujjóot xabla salaam su dee baal salaam ñu sëlmal ba pare door a fay bu dee kuréel gu njëkk gi la su ko defee ñu ànd ak imaam imaam wàññi na ñoom nañ jug fay waaye balaa ñoo sëlmal nañu sujjóot xabla salaam bu dee baal salaam nañu sëlmal ba pare door ko fay amaa bu dee kuréelu ñaareel ga la imaam bu waree sujjóot dina ñoom fekkee wu ñoon jamono ba dañ koy sujjóot waaye bu dee la salaam la xam nga imaam da koy sujjóot ak ñoom ñoom dañu ànd ak imaam sujjóot ko foofu bu dee baal salaam la ñu fay ba pare ñu door ko sujjóot noonu lañ koy defee wasi sa danañ tat na alxawf ragal gi an loolu bu dee ragal gi tat na tat na ba mënuñoo julli julli ragal nii ñu ko waxee xatta junj sax mënuñoo xaaj mbooloo mi sax di junj ndax yooyu yëpp buñ ko defee ñu ragal leen parce que xare am na fu mu toll du ngeen man lool law nañ julli wax daalan kenn kenn so dañoo ragal ragal ragal ragal bu mënuñoo xaaj mbooloo mi ndax danse bi du ragal sax waaye mbir mi moo moo danse moo raglu dañuy كم sen كتر nuñ mëna julé rek mushatan mo xam dañuy dox ak tank aw rukbanan wala dañuy war machine dañuy dox simple aw sa'ina wala dañuy daw مستقبل القبلة لن يجبل القبلة وغير مستقبلها ولا جبل القبلة نجم أنا جولي رك بلن نخير كون يسجور يم يجنيكو ما يجنيك من أنا كسن خل من يجولي داو من يجولي دي jam mën nañoo jublu julli di wax ñu gisee sax kuñ bëgg a faagaagal ñoo moytul mën nañoo julli takk deret di def lu ne di dóor ak ak lépp junj gi julli gi junj la rek ne allahu akbar bu mënul jàng faatee sax wala muy jàng faatee ba digg ba xam lu ñëw dafay dagg faatee gi su paree kon ne noonu rokon gi mu di ko junj rokon naa siggi naa si xelam ba julli gi pare foofu moo maanaam mooy jullil noo ko noo ko mënee xam nga julli bu ñëwee ba ci xaal bu toll nii lislaam teggalul la julli daf lay woon fonk ko fonk ne la jullil noo mën a jullee noo mën a jullee foofu kenn tënkul la julli googu ni ko mënee rek noonu nga koy defee ndem bu fekkee boo jullee normal nga am problème dégg kon jullik ragal ñu tënkaat ko bu fekkee tukki la imaam dafay jiite mbooloo mi benn rakk bu dee tukki la wala muy suba dafay jiite mbooloo mi benn rakk jug taxaw di ñaan walla mu noppi wala muy jàng yaa ngi de su ko defee kuréelu ñaar rek imaam da leen junj na leen mottali leen waaye balaa boobu na leen xamal li ñuy defee julli même bu dee xam nañ ko na leen ko fàttali. loolu ñu koy sopp bu dee xamuñ ko ne dafay war mu xamal leen su ko defee kuréelu ñaareel gi seen rakk bi des ñoom sëlmal bu imaam amoon xabla salaam nag ñoom ba ñu fay rakk boobu si lañu si jot xabla salaam bi salaam nañ ko fay ba sëlmal dooru si jot baada salaam su ko defee ñoom bu ñu jugee dem jàkkaarloog noonu yi ñeneen ñi ñëw imaam jiite leen rakk bi des imaam bu amoon xabla salaam bu si jot xabla salaam moom ñoo ñoo koy ànd foofu bu dee baada salaam nag moom imaam bu sëlmalee ñoom nañ jug fay ba sëlmal dooru si jot baada salaam boobu noonu la ñuy def ci julli ki yëpp ci julli ñaari rakk yëpp moo xam tukki la ñu wàññi julli def ko ñaari rakk wala teew la bu dee timis la mbooloo mu njëkk ma imaam daf leen jiite ñaari rakk su ko defee toog di ñaan wala mu noppi mbooloo mu ñaareel ma nag wala boo sax imaam bu ne neex mën naa taxaw di ñaan wala mu noppi loolu yëpp wax nañ ko su ko defee mbooloo mu ñaareel mi ñëw imaam jiite ñoom ñu fay benn rakk bi des. dem taxaw fi seen moroom mi taxaw mbooloo mi ñaari mi ñëw imaam jiite leen benn rakk bi bi des su leen imaam jiite benn rakk bi des nag moom dafay sërmal su ko defee ñoom ñu fay ñaari rakk yam doon woon bu doon julli ñeenti rakk imaam dafay jiite mbooloo mu nekk ñaari rakk saa yemee ñaari rakk nag wute nañ ndax day toog di ñaan wala day taxaw su jiitee ñi ñaari rakk ñu ñu julli ñaari leen ñaari rakk yi des ñoom ñu fay ñaar kii leen imam rawee woon loolu moom mooy julli mbooloo bu doon ajjuma nag dañuy sart ñoom ñëpp ñu teewee xutba yi ba pare kuréel gu nekk mu jiite ko benn rakk bu deen bu doon ajjuma la waaye mbooloo mu nekk na mat fukki góor ak ak ñaar comme noonu ko ujoor yi mm, waxee woon dégg Euh, julli gi nañ ko mën a jullee rek lañ koy jullee moo xam dañuy junj wala dañuy sujjóot sujjóot yu mat sëkk sans dépend ci nañu ragalee suñu ragalee nag ba yooyu ma wax yëpp dara mënu cee nekk nañ julli ñu mën a jullee di daw di julli di dóor di tëb mën ngaa julli sax balaa ba si digg bi ñu far la rey nag julli gi mottalee ko àll àll xalaat dégg foofu moom noo ko mën a jullee rek noonu nga koy jullee mu des nag su fekkoon ne dañoo julli ba ci digg ba noonu ya dem. maanaam commencé nañ jullit ragal ba ci digg ba noonu dem baleen lañ loo ragal la ragal tuñ xam nañu léegi am nañ sécurité dañuy julli julli ku am ku ragalu dara rukon yeeg sujjóor yi yëpp ñu def ko dégg nga euh, buñ doon julli julli gii nuy laa wax julli julli ragal nga xam ne ni sañatuñoo amatuñ mënatuñoo xaaj mbooloo mi ñaari xaaj di julli julli ragal ragal ragal ragal bés la mbooloo dem kenn ku nekk dafay mottali julli gu mat sëkk yow bu fekkoon amoon nga rakk mm. da nga koy julli julli gu mat sëkk bu la fekkoon ci sujjóot ay warutoon sujjóot mu continuer julli kon bu doon ragal nañ ba mënuñoo xaaj mbooloom ñuy julli nañ mare mm. gannaaw ga mbooloo ma dem mm. euh, noon ya dem ñu am jàmm dañu mottali seen julli waaye kenn kenn lañ koy mottali parce que noonu lañ ko commencé dañ koy mottali julli ku am dal xam ngeen mu wax dañoo julli si xeex bi talatuñ sax xaaj mbooloo mi ba si kanam noonu dem yow bu la fekkoon nga am ñaari raak yeneen ñaari raak yi des mottali ko normal bu la fekkoon nga nekk si sujjóot aywa sujjóotal suuf nga mottali julli gi normal parce que am ngeen dal waaye nag doo ko def mbooloo parce que kenn kenn ngeen ko commencé su fekkee da ngeen koo xaajoon nag mbooloo mi imaam di jiite ñi imaam di jiite ñi ba ñu am ñu am dal noonu dem. dañuy xool su fekkee mbooloo mu njëkk mi avant ñuy tàqali ko imam ci la jàmm ji ni ñëw mbooloo mu njëkk mi avant ñuy tàqali ko imaam ci la jàmm ji ñëw kuréelu ñaareel gi dañuy ñëw ànd ak imaam mu mottali daal mu mottali ñëpp dégg nga hmm? noonu lañ koy defee maanaam kuréel gu njëkk gi ci misaal jiit na leen benn rakk avant rakkam ñaareel ba jàmm am kuréelu ñaareel gi nañ ñëw ànd ci rakab ñaareel ba imaam jiit jiituwaale yeneen ñaar rakk muy ñeent rakk su ko defee imaam sëlmal su imaam sëlmalee kuréel gu njëkk gi ñoom amuñ problème parce gi yëpp ànd nañ ko imaam kuréel ñaareel gi dana ñu daal di ko fay xam nga lu mu wax kon su fekkee jàmm ji ci kuréel gu njëkk gi la kuréel gu njëkk gi avant ñuy tàqale ko imaam ci la jàmm ji ñëw kuréel ñaareel gi dañuy ñëw rek ànd ak imaam ñu daal di normal su ko defee kuréel gu njëkk gi imaam rawewu leen dara ndax ñoom lépp ànd nañ koy moom kuréel gu ñaar leneen imaam rawewu ñu daal ko fay su fekkee jàmm ji nag dafa ñëw kuréelu ñaareel ga dañuy xool kuréel gu njëkk gi képp koo xam ni mottali wut ci woon kuréelu ñaareel moom ñëw nañ waaye kuréel gu njëkk gi képp koo xam ne nii julleem paree wutoon dafay ànd ak imaam ku julleem pare woon nag moom wàcc na ko noonu lañ koy mottalee bu dee jàmm ji si kuréel ñaar rek lay am koo xam ne julleem parewutoon si kuréel gu njëkk gi dafay dugg ànd dafay kon ànd ak imaam kuréelu ñaareel gi lu imaam def rek mu def ko dégg waaye su fekkee sëlmal na ba pare moom moom la mu defoon la mu defoon baax na dégg si misaal dafa jiite kuréel gu njëkk gi ñaar rakk moom imaam toog ñii di jug dégg hmm? eh, su ko defee bañ jógee ñii am nañ benn rakk sëlmal guñ ñii am nañ ñaar rakk yu mat sëkk ba sëlmal ñi am ñaar rakk yu mat sëkk ba sëlmal ñoom seen ñeenti ràkk yëpp mat na ñoom wàcc nañ noonu yi door a dem wàcc nañ ki nga xam ne moom ñetti ràkk rek la am noonu yi dem kuréel ñaareel gi ñëw moom nu muy def moom nee nañ ko am nga ñetti rakk xaaral imam si ñeenteelu rakk ba yow ba mu def moom baax na parce que si normal la ko def na si ñeenteelu rakk ba su ko defee imam bu jiitee kuréel gu njëkk ñetteelu rakk ba ci ñeenteelu rakk ba moom mu ànd ak imam si ñeenteelu rakk boobu su ko defee bu imam sëlmalee moom moom jullit yëpp baax na di la ñetteelu rakk bi àndu koog imam mais ngant la woon su ko defee nag kuréel gu njëkk ga fay ñaar rakk yi imam rawee woon yooyu nga xam ne ma leen bëgg wax mbaa hmm? su fekkee jàmm ji ci kuréel gu njëkk gi la amee kuréel ñaareel gi dañuy ñëw rek kuréel gu njëkk gi continué ak ak gu ñaareel gi yëpp bu gi ñëw ñoo ak imaam amuñ problème ànd julli gi bu ñaareel bi nag la leen imaam rewoon jàmm ji ci kuréel ñaareel gi la amee képp koo xam ne nii ci kuréel ñaareel gi la bokk waaye nag moom hmm. euh, fekk na jàmm am mu ñëw ànd ak day continuer ànd ak imam li des la njëkk ràkkee ko imam royee mu fay ko ki nga xam ne si kuréel gu njëkk gi la bokkoon te sëlmal la moom ba pare dara nekkul ci ki nga xam ne si kuréel gu la njëkk gu njëkk gi la bokkoon waaye def na dara waaye sëlmalagul dafay xaar imam ba imam tolloog moom mu continuer ak moom am na wax ñoom ñoom dañuy ànd julli noonu rek loolu laa misaalee su doon julli ñeent rakk la si misaal Euh, kuréel gu njëkk gi imaam jiit na leen ñaari rakk moom mujj fay ba am benn rakk jàmm am kuréel ñaareel gi dañuy ñëw ñaar rakk yi des imaam jiite leen ko waaye moom mu am ñetteel rakk nag moom dafay xaar imaam ba ci ñeenteelu rakk fa ba fa mu toll mu ànd ak imaam di rakk boobu des euh, ñu sëlmal moom du fay dara waaye kuréel gu njëkk gi danañ fay ñaar rakk yi la imaam loolu la. Euh, su fekkoon nag lii mooy ñuy julli ba pare ñuy julli julli ragal far jàmm am waaye bu ñu doon julli julli sécurité musiba daal di am ñu daal di ragal nuñ man rek lañ koy mottale nuñ man rek dina dañuy julli ah teqali ko sax di dóor ak nangam waaye duñ tagg julli dégg kon su boobaa nuñ man rek lañ koy mottale su fekkee mën nañoo séddale mbooloo mi nag dañ koy séddale comme comme comme noonu ñu ko waxee woon su fekkee benn ràkk lañ am ci misaal su julli tisbaar noonu yi daal di ñëw hmm? imaam dafay juñu genn wàllu mbooloo mi ne leen seen julli ñoo ñu dagg dem jàkkaarloo noonu ya dégg nga suñ jàkkaarloo noonu yi kuréelu ñaareel gi mu mottali leen ñaareel ràkk ñoom ñu jug fay ñaar ràkk yi des dem après gars yi ñëw imam jiit la ñaar rakk yi des su fekkee nag imam dafa julli ñaar rakk yi ba pare hmm? ah mbooloo mi noonu yi daal di ñëw su ko defee daa am kuréel gu muy jum ne leen dagg leen ñoo ñu dagg dégg nga hmm? bu ko defee buñ daggee benn kuréel gi des moom nañu julli yeneen ñaar rakk yi des su suñ paree ñu dem xeex yi yeneen mbooloo mi ñëw tax ñeneen ñi ñëw imaam jiite leen ñaar rakk yi deet yaa xam ne la wax kon bu nekkee su jullit sécurité jullit jàmm ragal ñëw nañ ko man a mottalee lañ koy mottalee bu dee mënuñ ko mottalee xaaj mbooloon dañuy continuer rek di ne ñu ngi ci julli gi ku nekk la nga amoon la ngeen amoon xam nga ko diiree da nga koy mottalee sa xel rek naa lu ko naa sujjóot naa ba mu jeex su fekkee nag mën nañoo xaaj mbooloo mi dañuy xaaj mbooloo mi. mooy imam na juñ ñu génn wàll gi ñu dagg dem taxaw fëre bu dee benn ràkk la amoon mu jiite ña nekk ak moom ñaareelu ràkk ko defee ñoom ñu julli des bu dee ñaar rakk la amoon moom imam yu mat sëkk su ko defee euh, moom imam na mbooloo mee daal di mottali yeneen ñaar rakk yi des moom mu taxaw ñu di daal di dem taxaw ci palaasu noonu suñuy sëlmalee mu daal di leen mu daal di leen jiite dégg nga su ko defee noonu lañ koy noonu lañ koy euh, jullee waaw su fekkee nag dañoo julli julli gi ba ma sëkk nag si julli ragal ñu daal di euh, euh, am sécurité jarul ñuy baamuwaat ndax loolu baax na julli nañ julli gi ba ma sëkk ñu daldi di am sécurité jarul ñuy baamuwaat ndax julli kooku baax na. dafa mel ni su fekkoon ne imaam jiite na kuréel gu njëkk ñetti rakka yu mat sëkk ah, ah su boobaa eh, boo ko dafay dafay am problème soo xaajee kuréel gu njëkk gi ñu dem jàkkaarloog noonu su loolu du mën a mën a nekk parce que jiite na lii ñetti rakk yu mat sëkk su boobaa xëy na xëy na naam ñu dagg rek pour ñu nekk ci jàmm. mu jiit ñu des ñaar rakk yi ñeneen ñi buñ ñëwee daal di julli parce que foo am na ñetti rakk yu ma sëkk te ñetti rakk kenn du fa tàqalikoo ak ak imaam suñ ko mënee julli su waa ñoom ñooy xool na am ñu dagg moom force dala day war buñ daggut ñu ñu musiba daal seen am ñu dagg rek mais ñu nekkoon ak moom moom daf leen julli ñeent rakk su ko defee ñeneen ñi buñ pare eh, ñoom mën ñoo ñëw beneen imaam jiite rek ñu daal di julli waaw danañ am tiyaab bi waaye foofu ngant moo fa nekk in uridu illa islam astantu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu